màggal jubsee ñëpp takk jukk wutali Touba te ku ni Touba xel yi ak xol yi jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba jëmm ji waral li lépp moom jëmm ju tedd ji bàyyi na fi ay bind yu ëmb ay ngëneel yu bari ci bàttin ak it ci zayir jëf dana sell waaye jëf ju sell ba sell ni mbindum sëñ Touba moom man xawma ko maanaam jëf ju ko gën a sell xawma ko ndax moo ko waxal boppam dafa ne surtout yi mu def ci géej gi dafa ne ak ak sax ginaaw géej gi da da koy bind wax ne fil baxri سعيا خالصا وبه حزت الذي ساق ساق للاوراق والذهب دافني لغينا بندنا اي قصايد تي جيج جيف جو خامني من مو خامني دا فا سيل يال رك تخ بو غيسه موم اي قصايدتم يموت قصيده كنين لو باتخ موني قصائدي فاقت قصائد الكرام موي فم كو دون ديفي ak circonstance yi mu doon dund nekk ci sa biir yi noon ñu wër la côté bu ne bëgg laa lor lor gu ne bëgg jël sa bakkan yàlla dimbale la nga am daluk man di bind ay xasaayid yoo xam ne tey ci wàllu arabiya làkk bi ak balaaxa bi maanaam rhétorique bi ak arood bi maanaam wayin bi yooyu yëpp macha allah kenn mënu cee wax dara lu kawe la ci ci ci wàllu qualité loolu lu maanaam ku koo xam ne defoo lu lu mel noonu mu defoon doo mën a am lu mel noonu moo tax benn bis dañuy jàng xasida sëñ bi lenn ci mag ñi toog maam Thierno Birahim ma nga fa woon ci niñ ko nettalee xasida yi nii ni muy def murid rek maam Thierno soppiku xaw a mel ne ko soppiku sëñ bi daal wax ki doon jàng ne na dal tuuti na noppi bi mu noppee mu ko Thierno de ne li lay yëngal mooy li nga xaw a far ci xam lenn ci maanaay li kii doon wax léegi ak it baatam moom ki koy jàng mu ne ko waaw Mbàkke dafa yéeme lool te te daw yaram mu ne ko waaye nag am na li li am am na lu la ci ump de mooy sa waa ji ko def boppam lay wax fa mu ko doon defee ba ba ba def ko ci anam ku mel nii keneen kuñ fa yóbbu woon ku dul moom boo amee lu muy wax leneen leneen lu ko fa jëlee lay doon waaye du wax lu mel nii. <laughs> am feneen foo xam ne sax dafa wax ne xasidati faaxat suyuuxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuuxa tarxe nee na sëriñ bi nga xamante ne da lay yar teg la ci yoon wu baax sëriñ bi nga xam ne da lay yar marale la ak sa borom li muy gaaw gaaw ci loolu li muy man ci loolu sama xasida yi moo ko ci man kon mu mel ne yi daal lepp ngi ci mboolem li ñuy sakku rek mu ngi ci. yile xasida ak it mboolem bindum Serigne Touba ci bépp fànn ñukoy exposer ci kër gu mag gi ñu duppee daaray Kamil Ousseynou Diatara di ndaw bi fété ci secrétariat général bu bibliothèque bu mag bi di ci antu. nañ ne yoonu murit mën na ko génn ci li parce que yoonu mourid li moko li lii taw ko taaw bu ñu yoonu murit Serigne Touba li tax mu taxawal ko tax mu fondé ko ci xam-xam la ko tek fondé wu ko ci ay wax fondé wu ci ay lambatu def koo teg ci ay fondement yi leer nañ ñi muy xam-xam xam-xam boobu nag mu ko teg moo tax sëñ Abdou Lahad Mbacké xam ne sëñ Tuubaa léppam xam-xam la mu jël lii jëmmal ko ndax sëñ Tuubaa moo ne woon sama trésor mooy alquran hadis ak ay teggin kon trésoram du or du urus xaalis trésoram mooy alquran ak hadis teggin trésoram boobu nag la sëñ Abdou jël jëmmal ko si barabu selli bi xam ku fi ñëw tey doo doo doo wax ne yoonu murid amul xam-xam ku fi ñëw tey danga xam ne sëñ Tuubaa liggéey na ci xam-xam loo xamante ni yombu gis ko ko liggéey waaye du question rek sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ci xam-xam borom xam-xam ci àdduna bi ci àdduna bi yëpp ku fi koo fi dikk da nga ay livre ci barab bi ndax am na salle boo xam ne salle culture lañ koy wax mbooleem xeetu xam-xam yi nekk ci àdduna yi ñuy jàng ci université fànn yooyu yëpp ñu ngi ci barab bi sëñ Tuubaa dafa tagg yonent bi salaam salaam taggin woo xamante ni kenn mosu ko gis ci àdduna bam ci jógee jël ci yonent sallallahu alayhi wasallam def ay xasida yo xamanteni te ni ala nabi la ko la ko la ko tuddee xasida yoo xam te ni ko teunk ci salaatu ala nabi la jël ay xasida yo xamne ko def sikrullah jël ay turu yàlla yi 99 no sak no mu def ko ben xasida jël turu malaaka yi turu sahaba yi turu yoonte yi yoy yep mu def ko ay xasida yo xamanteni ma sha allah bam mu pare mu jël alquran liggéey ci liggéey bo xamanteni ni kenn liggéey ko ci xasida yi alquran la jël par lettre sak lettre mu def ko ben poème ba ah, ah, alphabet coran yëpp jeex bi mu ci paree mu jël aayaat yi aaya bu ne mu def ci benn xasida ba mu jeex ay li ngay dégg ba kaanaa xaan ay la xadd jaakum façon xasida yooyu mooy quraan yi nga xam te ne alxuraan la ko tënkee. ay leeral mu koy indi ci xasida yi di xam li ni dañu cee teg ay ndigal ngir képp ku ko nar jëfandikoo. xasida yi sëñ Tuubaa dafa waxoon lu leer yii avant may dem ci géej gi yi ma bindoon bu ko kenn laal. yi ma bindoon bu ko kenn jàng loolu luy leer nañu la mi ngi ci majmua bi nga xam sëñ Blaat moo ko dajale yi ma bind nag ci biir géej gi bu ko kenn jàng yooyu sama digganteeg samay noon la kon yooyu bu kenn utiliser yi ma bind nag bi ma di dellu bi ma nekkee Jurbel yooyu nag digle naa ko koy jàng noonu la ko digle woon kon ñaati xaaj yooyu la waaye loolu ñu ciy liggéey ndax yooyu ba tey amaguñu ràññeeku ndax xamaguñ yooyu bi fa muy dem ak bi mu ak bi mu demee di ko yëpp xamaguñ ràññee gi waaye nag am na ci ay borom xam-xam yu mag yoo xamante ci génne nañ ci yu bare bare bare yoo xam ñu koy ñu koy digle ay kemtaan bind yi dañu koy def lu ci mel di saafara ay jàngoro ak it yeneen i xeetu ci yaramu doomu aadama sëriñ Fallou Bousso Tamba di ko xamle xam nga sëñ Tuubaa moom mooy fajkat bu mag bi euh, nga xam ne da koo xamal lépp luy jàngoro yu xol ndax bu ñuy wax jàngoro nag jàngoro yi gën a am solo te xasida di ko traité mooy jàngoro yu xol sëñ Tuubaa bokk na li ko taxoon a jóg mission mooy defar xol yi ba nit ñi mucc ci kiñaan mucc ci rëy mucc ci njistal mucc ci naw jëf mucc ci bëgg daraja bëgg àddina bëgg alal xir ci àddina yooyu yëpp xeeti feebar yooyu nga xam ne euh, bu ñuy wax maanaam seexu tarbiya dëgg-dëgg loolu mooy mission mooy day fexe ba yooyu ci nit yooyu nag bi mu fi nekkee suñ borom da koo baaxe woon xamal ko jàngoro yi xooli mbindeef yi ku ñëw ci moom boo taxawee boo sukkee ci kanamam rek xam na yow lan mooy sa jàngoro xam na it fa muy ko bi mu demee nag ba war fiy war a dem noppalu ji Touba euh, ñëw Touba dem àjjana suñu borom daf daf koo xamal ne ko loolu nga yoroon muy faj dindi jàngoroy xol ak xëcc njariñ yi ak jañ lor yi damaa bëgg léegi nga dindi ko ci sa loxo te def ko ci xasaayid yi te ñëw ma déyalé ak yow loolu sëñ Cheikh sar mu sëñ Bay sar moko net nettali te fekke woon na jotaay ba boobu sëñ bi dafa laaj xasida yi nga xamné mom moom la taalibe yor seen kër dinañ ko andi bañ ko andé mu lal bas ak ak ak ak laltu gu mag dal la jël xasida yëpp jor ci dal di wax ne sayyidina Jibril kat mo fi ñëw ci ndigalal yàlla wax ma ne ma na na leen xamal dara jey xasida yi ak doolay xasida yi dal di wax ne nak ci la ma xamale ne ma def ak dindi xëcc ak jañ légui dama bëgg nga jëlé ko ci sa loxo te def ko ci xasida yi te ñëw déyalé ak man daal di wax nag ci la waxee nag ne xasaayit yi ngeen ngeen am yii ngeen di ko jàng ngeen di ko diglu ngeen denc ko ci seen i dencukaay yi di ko toppatoo bala ngeen a xam njëriñ li dëgg dëgg nga nit ki faatu murit bi faatu bañ waajal ko war ko jébbal boromam ba nga xam ne jëfam moo ko war a jiitu ci bàmmeelam nee na su boobaa xas xasaayit yooyu ma doon jàng ak yi mu doon diglu ak yi mu doon fonk di ko màggal ñooy jiitu ca bàmmeel ba di ko fa xaar xasida bu ne am na am na lu muy lu muy jëriñ doomu aadama xasida yi boo ko jàngee waaye yëpp am solo mais nag euh, sëñ Tuubaa nag moom comme que moom léppam dara dara dara loolee waaye am na ci yoo xamante ni nit ki bu koy jëfandikoo war naa laaj ndigal war naa laaj ndigal nan la ko war a jëfandikoo ndax xasida yi ci biir ay secret da ca nekk secret yooyu nag koy jëfandikoo bu fekkee xamoo ko mën na laa indi ci yeneen jàng yeneen yeneen gàllankoor. Ousseynou Diatara di ci yokk ni xasida yi ay comprimé la rek yoo xam day faj bu nekk ak jàngoro léegi nag bu fekkee nga ne damaa siburu ñu bindal la euh, bindal la yoo xam day faj beneen jàngoro bu siburu boo ko naanee mën ngaa loru kon xasida yi noonu la dem noonu la demee ay ay ay kii la ordonnance la yoo xamante ni ki nga xamante ni moo feebar yan traitement lañ koy jox mu jox ko kon da nga ciy am dañ nga ciy am digal koo xamante ni yàlla may na ko ci gëstu na ci mu dem laaj ndigal ci yan xasida laa mën a jëfandikoo yoo xam toll na ak sama niveau ñu jox la ko. waaye boo jëlee yoo xamante ni sa niveau tolloowut ak moom bu yàggee mën ngaa indi sa bopp ak yeneen yeneen yeneen jafe-jafe te yàggut ak sa bopp. Makhtar Cissé samp taabalam ci wetu armeel yi janu ak jumaa ji yàgg lool ci liggéeyum wecceeku xasida yile moom it di dëggal saafara yi nekk ci mbind mi. ndax sëriñ bi moom bi muy bind daa sóoraale lépp te jëmmam ji taxutoon daanaka suñ jëmm yi rek moo taxoon ah nga xam ne lépp lu waaye di sàkku ci xasida yi moo xam wér gi yaram la. moo xam texeg àdduna ak àllaaxira la moo xam xol bu sell la moo xam saafarawu la lu mu ci mënti doon soo ñëwee ci xasida yi da nga ko ci fekk am na genn xasida gum bind xam ne noonu la ko tuddee sax mu tuddee ko fii sifaa'un linnaasi nga xam ne daf ne lii mooy nit ñi nga xam ne nit ñëpp la wax nga xam ne ak euh, koo xam ne sax xañ na doonut jullit doonut am murit sax mënees na koo saafara ci xasida yi amaat beneen xasida boo xam ne bind na ko mu mel noonu ñu koy wax matlabu shifaa yi te muy nga xam ne maam kuy sakku ak wér gi yaram la wax wala kuy sakku wér nga xam boo demee ba ci biir xasida gi am na fu muy wax naan wa dum alayhi fil mashaa'i wa sabah wa ahli santanal shifaan wa falah mu nga xam ne dafa wax ne na nga sax ci di ko jàng ngoon ak suba bu boobaa suñ borom dana la defal shifaan mooy ak wér wa falah ak mucc waaw nga xam kon xasida googu moom ci wér gi yaram dëgg dëgg dëgg ci lay dox beneen bi it waaye dëgg la ci wér yaram lay dox sax waaye defaale na ci sax ak mucc àdduna ak alaxira ndax falaax googu li muy firi mooy mucc nga xam ne kon xasida googu moom it wér la am yeneen xasida yoo xam ne ba tey xañ na taalif na ko ci maanaam luy raxas ab xol lu mel ne jësbul xulub xam ne sëñ bi dafa wax ne maanaam day ñoddi ab xol illaa allaamil xuyub jëmee ko ci ka nga xam ne moo xam yu nëbb yi muy suñ borom am yenn xasida yoo xamante ne da koo tuddee mafatihul bisri wal amni wal janna nga xam ne mooy caabi mbégte ak kóolute ak àjjana am yeneen xasida yoo xamante ne jaalibatul maraaxib la ko tuddee mooy li nga xam ne mooy ñoddi xeemem téef fi am yoo xamante ne ku bëgg a moom ngay jàng mu ko tuddee ko jaalibatul buróor mooy li nga xam ne mooy ñoddi ak mbaax maa xam ne daal buñ ko toogoon di ko lim daal fii ba suba mën nañu fee fekk ci xasida gu ci nekk ak ni ko xasid ni ko sëriñ bi maanaam mooñaale nga xamante ne nit ki saa suy sàkk lu mel noonu su jógee dem ci xasida googu suñ borom mën na ko koo cee defal ci lu gaaw te xasida lépp loo xamante ne nit ñi mu ngi koy sàkku nag ci digganteem ak boromam moo xam ci digganteem ak yenant bi ci digganteem ak sëriñ bi lu mu ci mënti doon xasida moo ci gën a gaaw ndax ah, am na wenn bayit mu koy wax ci yenn xasidaam naan tuwasilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatil wallahu abga kama arna nee na boo bëggee yegg ci yàlla yegg gu gaaw gu jarut ngay dugg xalwa wala ngay beru di tudd yàlla li ci gën a gaaw mooy nga takkook sama xasida yi mu rax ci doli ni ci yu mbass bi ñu ne am na yu ñu ci gëna tamu ngir muccu ci bi li eh, xana mom dañ ci jaaraat ci ndigal li nga xamne serigne muntaka joxe won nako ci rek ah, bokkon na ci kana haqqan alayna nasul muminin ah, farij bi jahil Mustafa an ummati nga xamantene bo boo bop xasi degi rek niko serigne bi tënkee dafa yéeme moy farij bi jahil Mustafa an ummati moy na nga wàññi njàqare ci mbollem xetu sayyiduna muhammad sallallahu wasallam kon lepp lu leni ragal lo wala lu leni di wala lu yobbu sen xel suñu takko ak qasida gogu di Farid bi jahil mustafa suñu borom da koy dak motax bo boo kurel gogu di isbu tarqiya suñu muntaka daf leena digal sax sa suñu jangate ba pare ñom ñukoy ñaani ma qasida gu melne ne matlabu shifa yi lu bax la ci mbass qasida gogu ñuy wax ya rabbi bil mustafa al mukhtar min mudari safih ummatihi fil fil bahri wal wal hadari nga xamne ne gogu googu tamit bokku na ci suñu muntaka joxe won yoy yi wax nañu kep ko xamantene ni manam jang ci jamono yi mo suñu borom dana la aar mbotu xasida yi di lu yatu lol bu weesoo karaama yi ak taalif yi nga xam ni sëriñ bu mag bi mu ngi ko ciy def xasidaay sëriñ Tuuba yi doon na luy faj ay jàngoro